vraiment mu nekk loo xamante ne lu am solo la parce que ay entreprise dafa baax solo ci commune parce que entreprise dafay tax vraiment ci wàllu impôt mu am lu muy jur am lu muy def ci commune bi non seulement mais ci main d'œuvre bi donc tey satisfaction lañu am ñëw vraiment ànd ak sous-préfet ànd ak les autorités locales pour vraiment inaugurer vraiment ce bijou parce que entreprise la boo xamante ne tey ça représente la sous-région donc tey bu ko jëlee installé ko dañ ci am satisfaction parce que entreprise dafay tax commune bi gën a am koom kon loolu tey dañ ci am satisfaction ànd ak ñoom kon ni ma koy waxee rek en tant que partenaire accompagné na aussi xam ngeen ne aussi commune de Sangalkam dafa yaatu ñu ci 152 ñu sol ay infrastructure di liggéey ci santé ak éducation donc tey entreprise mel ni occasion tey si wàllu RSE mën a accompagner la commune te si wàllu woowu waxtaan nañ si am na audience boo xamante le directeur régional accordé ko pour ñu toog waxtaan xool au niveau local la amee développement local ñu mën a fexe ba duñ nekk ay ouvrier seulement mais ñu nekk ay professionnels yoo xamante ne jàng mi am na fi ñu mën leen intégrer dans cette société là pour que pour mu vraiment emploi donc loolu aussi am nañu ci yaakaar bu baax a baax di am mbégte ñoom ay jéego mais on la demande à maintes reprises mais tey yàlla defal ñu tey naa fi am na occasion pour rencontrer vraiment tous les directeurs yi nga ak autorités yi fi nga xamante ne tey ñoom ñoo fi ne échangé nañ ak ñoom am nañ si yaakaar bu baax a baax que ne vraiment d' après ma jot incha allah bientôt dinañ ma accordé benn audience ñu waxtaan échanger xool ci RSE boobu nañ ma def ba Nimba loo xam vraiment dugg ci commune bu baax a baax en terme de santé éducation assainissement.